rahmaani rahim allahumma inni anhaytu tahayyu'i ila ma tuhibbu wa tarda haqiqatan bika fi yawmi sabti ci la ko tedd ki waxee ni illa ya xaali bi nabiyal xasda fi basatini uddimul xasda ci bisu gaaw bi ci la waxe ni itam hurubu ahli badrin al usudi axsadi adaaya wa nafat xasuud yi jéggalu ci kàddu yi ginnaaw bu ñu ziyaare ku baax ki di ziyaare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 yow ma nadduhu kulla unaasin bi imaamihim laaj la ni la Cheikh Mouhamadul Muntaxa ba ñu ko jiitalee ci almuridiya ku tedd ki jiital ko ñu cërale la ca lii lu doonoon sa taxawaay ñun ñëpp dañu koy laaj moo tax ñu jàpp ni doon na rafet ci ñi ko gën a jege ak ñi muy liggéeyloo ñëpp def benn dànk xool njabootu ku tedd ki kër gu ca nekk taaw ba bu munte ñëw yebal ka mu wóolu mu teewal ko ci sëñ ba ñëpp teew fa ñu ne ko réew mi nit ñi ku tedd ki dafa yërëm jaam ñi ba loolu ko fi indi fii loolu ko indi ak dunia mu waxe ko nu nekk te waxoon na ci njaag biir ne xadda anqanil yow ma xubbul ahli wal watan xam darki ma li zawil anwaari wal fitan ñu bëggoon mbàkkee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 waaw waaye l'islam bépp Serigne Touba bi muy ñëw fii yeesal l'islam moo ko fi indi fii ak sowe jaam ñi amara ni rabbi bi an usarriha bi anna ni malazun wa mafzun fa man arada alxayra fii kilta yi dari ni fal yalus bii ñooñu bu ñu dajaloo ci sëñ bi ñu xam ne kër yëpp ñi Serigne Touba jaboti ñëpp a ngi fi ñi nga xam ne ñoo di ay seex ak ñëpp a ngi fi mhm. ñu wax sëñ bi ne ko sa yërmande yaatu na sa mbaax amul fu mu yem